ba tey kon gaa yi dañuy continuer beneen combat nga ci nii xam naa bi itam faw mu bëri coow ndax bari ñi gé wala boog jam ñaajo la ak géejawaay bi yoon dab daan waaw ku ne xam na ko bu jam ñaajo moom itam macha allah comme li ma wax sànq rek soo gisee mën nga jàqar ne sax du mbër waaye su bëree xam ne mbëree bëree waaye nag ak nii moom boo ko fekkee mu toog noonu leneen nga koy jaawale sax doo xalaat ne kii day sëgg ci làmb que nit na am nga sa style am na benn image booy incarné sa yaram moom xëy na loolu la ko yàlla may mu di incarné façon image bii waaye mbër la moo xam ne soit bi suulee nga xam ne bërekat la ki nga ko seqal nag muy mbaytin moom moom mbër mu am métier laa ko tudd ndax boo demee Petersen da nga koy fekk ca wanteer wa te loolu dafa baax ci mbër ndax père Max wax ne làmb tegandaay la comme tegandaay nag mbër da ngay am métier te moom da nga koy fekk Petersen muy wanteer ne ci affaire yi waaye bu bëri jotee nag su bëri itam nga xam ne mbër yi kon ba tey idaali moo fa jaar xam naa maam ñaaw sax dinaa ko fi jox mu am fi lu mu fi sànni moo ko mel ni Paul Maurice mii waaye balaa may ñëw si ñoom damay wax ñaari mbir ñu nuyoo ba pare dab daan maa ngi lay bëgg di la ziar. auzu billaahi min seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi gërëm suñu ñaari waajur di ñaanal sama waajur bu góor yàlla na ko fi yàlla baay yaa fi loolu di wër di waajur bu jigéen yàlla na ko yàlla yërëm xaare suufu Tuubaa woyof ci kaw di sant jam ñaari bi yëpp 1 ba 22 bàyyiwuma kenn di sant sama gaay yi ma àndal ku fi mel ni Balla Ndiaye Zé milliardaire Balaat Jaan ak armée bu ngéwal di sant bu baax aw ma seen fay di sant monsieur le du Mamadou Moulaye Gueye di ko woo combat bi combat la Adama Mohamed Mbaye Pape Seck Waly Faye El Hadj Mal jam ñaajo bi yëpp bàyyiwuma kenn waaw ñu yem foofu doxal ba ci kanam di sant Combaar Sall waaw bu baax xam sama grand suma xarit suma doom day am na sant kenkaayari bi yëpp jaay koo koy dab daan bu bari wala boog bu jam ñaajo waaye jam ñaajo bu bari ñi daa mel ni benn dëkk la rek sorante wu kër yi dañuy séenante Mbaye Tine maa ngi lay ziar borom Géejawaay jëloo ziar Babacar waaw ginnaaw ma sant yàlla liiru ne moom baat boobu liiru jànne la moom Géejawaay waaw waaw liiru ma sant yàlla jur seen jur maa ngi sant samay ñaari waajur di sant waa Géejawaay gi ma jógee yëpp waa di sant sama gars yi ki su mel ni dund ak Macha Berara di ko ñaanal xama ci ndam ci combat bi mu jëm mu toujours prêt di bëggee sama booy ñoom Pape Kane suul ama suul jin ak sama rakk bi Aruna ah du bëggee sama doom nday Modou maa ngi sant bu baax du bëggee meeram tamit xam nga waa xam nga nag ñoom ñu ngi ciy jàpp quoi ah, du bëggee sama patron la déggee numéro 2. Hmm. waaw di ko nag waa mbër taxawaay gis nañ ko quoi parce que Serigne Ba ma di la ñaanal ndam sa combat ama seen gam si xam lu seddu guy géej waaye képp ku am combat rek waaw ah, yàlla may la ndam. ñaanal nga lak waaye dañuy continuer xam naa ñaanal lak sax moom est-ce que doo njëkk régler say mbir ba pare yàgg dab mi. parce que dégg naa sànq fi mu sànnil ay baat ne na xaw ma ci waalo nga ne xaw ma ci Lac de Guiers ne na mbaa doo takk téere dellu ginnaaw arrière. non kii moom day wax rek mais man moom dama mais bu jour moo la gën a xam ne bu dëggalee boppam combat bi yàgg Babacar man billaay walaay gis ma arrière ci làmb. lu tax du arrière. mukk du ma xaw ma ko sax. dab daan mi doo ko arrière. billaay walaay ba am nay prix damay dox si kawam. wóor na loolu dama koy duma jàpp ko daan ndax man damaa war a dem nekkul kii moo may téye du ma moromam. doo moromam te mu lekk sama. billaay walaay du ma téye te bu jour ba lay comprendre. Mbaye est-ce que xam nga ne mbër ah. ñoom saa wala ñoom sëñ ngañ wala. baabu ko déggoo ma de kii bu hmm. man xam daa fu ma teg sama bët ci làmb quoi mais du kii. du kii kon daal bu ma la déggee ci wàllum dooleek bëri yooyu bokku ngeen ci daal. waaw. est-ce que loolu est-ce li ngay wax ni loo gëm la wala lu fi ne la. incha allah li may wax nii moom laay appliqué aw ma leen lu may waa ragal jege diit. jege diit waaw ah, du ma ragal wax de. waaw séeréer see jege diit aw ma leen lu may ragal te bu jour ba billaay wallaay bu dëggalee boppam combat bi du yàgg. kon dab daan mi daal ragaloo ci moom lenn. Babacar man daa ma teg sama bët lam mais du kii. Hmm. waaw waaw lam moo tëri rek mais billaay wallaay du ma kii. du dab daan wax ji leer na de nee na du yéen ñaar parce que comédien sax la wax moom mooy nuyu nag comédien yi parce que ñu ngi bëggal réew mi di def lu ama am solo ñoom comédien yëpp nag am naa ci nag ay préféré waaye ñoom ñëpp laay ziar rek ñaanal leen jàmm. waaw sant yàlla bu baax man bu ma demee ba làmb boole ma ak ma war a bëre ak moom xam dama koy nangul champion am champion lan daanaam la loolu tax mu jël su nekk woon champion du ma ko jël xalaatuma bëre ak mbër bu parce que ñëw si làmb ji pour comédie làmb moo ma ñor ma xam ni mbër la mat na mbër ma jël ko mbër boo demee ba ki ngay bëree mat matul mbër bu lekk avance am mbër gim doon moo tax ma lekk avance mu nekkoon keneen la duma lekk avance am làmb la làmb day jeex après làmb dafa am kon xam nga bu ñuy wax xam nga ah ay comédien ay nangam yooyu noonu xam amu fi amu fi parce que gisuñu fi Sanekh gisuñu fi Serigne Ngagne kon li nga ko kon comédien kon amu fi place man laa ak moom te si kàttanu yàlla ak mbaaxam incha allahu rabbi bëre naa grand combat bëreeti grand moom taxul man ma bëre grand komba parce que xam dama dégg ci yenn ay waxam mu koy wax. mais mu koy wax. nangu woo loolu. non parce que boo leen xoolee lamb xam ni moom taxul ma bëre grand combat bëre naa soo semaane grand combat daan ko bari naa dem cëri grand yeneen ak yeneen non deux jam non dam cëri ban non jam cëri bu kayaar moom moo ma daan ah. waaw moo ma daan parce que tamit wax dëgg fa yàlla làmb lañ nekk man xam nga lépp lu ma wax lu nekk xam nga boo ko gësoo gis ko du ma wax pour neexal damay wax li am maa moom nag ñoo war a bëre ci kàttanu yàlla dama ne hmm. daf daan bu doon foowee làmb hmm. moo am ci làmb li mu am ci làmb ngi may dégg hmm. daf bi doon foowee làmb moo am ci làmb lii moo am ci làmb bi ko doon fooyee mais daf daan jox làmb gëddam après fan loxo làmb war a yóbbu ñu teg foofu suñu loxo ñu xool lii xew mhm. leneen nag moo xew mbay Tine dama ko respecté trop sérieusement bu bu lépp rombee parce que làmb mooma booleek moom après làmb dafa am mhm. mbër la mbër mhm. la après làmb dañuy nekkaat man ak moom xam nga suñu xamante day continuer si kaw su ko bëggee parce que man jàmm laay wër si biir làmb ñu nag amul jàmm maak moom na bu ngeen buñ sumee daal yi suñu sumee daal yi dugg si géew amul jàmm dañuy jongante. wala teen la. jeex na mbaytin billaay walaay ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dama koy daan. Ah. yàlla xam na ni dama koy daan. waay lamb ji de déggoo ma de ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Ah, parce yàlla kàttanam ak mbaaxam ak yërmandeem lay defee lépp ñoo ngi taalal suñu loxo moom yàlla suñu borom di ko ko ñaan defal ndànk rek ma wax la dafa am ñoo xamante ne nii dafa mel ni waali Faye dafa bàyyi léppam mhm. ñëw sama kër téema et ubbi salle musculation jox ma dama dab daan ma wax waaw mu ne ma sant ma la dara am nga taay te nga tur ci làmb ku la jàppale nga dem def li muy war a def lépp ci man kon ko wax bi ma ko war a delloo la ku mel ni Adama Mouhamed Mbaye lépp lu may dugg lu ne moo ngi ci yëkkati alalam di ma jox ku mel ni Moussa Lamère Mamadou Moulaye Gueye noonu ku fi mel ni Pape Amandaw Seck ku mel ni El Hadj Baba Mal woo ma bu ñëw mu ne booy. da nga ah benn la Sénégal. daan la ñëw. kenn la Sénégal amul ñaar. wax ji nag wax ji lenn la. Mbaye Tine billaay wallaay taalaay bu lépp wëyee. waaw gënuma pare ci làmb bu fekkee xeex maa ko daa xeex billaay wallaay taalaay. est-ce que du sa dëgg damaa jàng ma de damaa jàng xeex soo ko bëre. ban ban xeex. na ko wëri ji bu gëstoo xëy na dina xam ñu ci bëri dañu reer a mbir. bëri naa mbër bu ne bu ma duggee ci géew bañ dajante runkum. su boobaa nga naan est-ce que moom laa nekkaloon. Ah. damay bañ loolu daal ko. na waa yàlla xam ni ni dama koy daan man yabuma sax ñu ma nekkal teguma sama bët ci ay mbaytinde parce que moom wax na ko dafa daan ay champion ba pare wëlbatiku premier grand combat mu ne comédien laa jël est yow la def comédien. waaw waaw waaw est ñu ngi doon bëree lan la doon bëree ñoom. waaw ko ko war a laaj. voilà loolu man du ma ko jàll benn baat xam su communication. pour ñun suñu biir foog mu jàngiwaat communication ni ngay waxee ak san mu nawle su ëllëgee beneen yoon bu laa ja rombee doo am yeddaange lu ma ko wax mukk lu ma ko war te wax lépp lu ma ko wax rek ci sport mais yow dégg naa ñëw na nga mooy comme yaa nga ca Lac de Guiers bul takk téere buy tax xam nga loolu yëpp sax. waaw déet loolu. waaw xam ko ko waaw loolu yëpp maa ko wax xay na ba ma ko koy wax. <laughs> ah déet koy wax <laughs> waaye naa nga waal naa mais Lac de Guiers. xam nga suñu la. xam champion la ndaanaan la mbër bu ma jox cër la waaw xam nga ah moo tax mu am li mu am ci làmb man du ma saltee la mais arrière bi kay la ñuy wax loolu non ndaanaan la laa dëgër la bërekat yaa ne mbër moo tax xam benn mbër moo ko fi daan kan Eumeu Sène mooy ko revanche bi war a dajawaat kon champion la ndaanaan la salteelu moom mais xam nga laa bëgg ah. sama bët ci moom laa dëgër laa ko teg déet waay waaw kon xooloo mbay mi non mbay xoolu moo ko sérieusement ñoo war a daje nag respecté naa ko jox naa ko cër parce que su ma ko daanul du ma bëreeg laa la booy boo la baax na di sant jam ñaajo bi yëpp nag kon li may wax rek tout le temps ku yaakaar ni man ak mbaytin dina yomb waaw yaa ngi nax sa bopp parce que nee na ma da ngay ñëw tëdd ma na ko non bëgguma ñëw rek tëdd bu boobaa day yomb ci yow waaw wax na ko fi sax nañ jëfante bu ko defee ñi ñëw seetaan si kontaan ngeen xeex dem si sëriñ yi naan teel fii teel fii teel fii bu war bi sifle naa ko buux mu daanu yooyu làmb sëriñ la mais ñaari góor yàlla yu jëflante taxaw war na mën a neex quoi. yow bëggoo làmb sëriñ non bëgguma làmb sëriñ. dóorante baytin xaw ma sax nu mu tudd. ah laajte turam te day jaar sama tur. yàlla xam na ne ak waxtu yàlla bi xaw ma nu mu tudd laajte wu ma turam lu jënte ma ko. làmb est-ce que àndul ak lépp lu mu mën ci man na ko def yàlla fi ne. loolu de am na moom dong yàlla de ñoo ngi taalal yàlla suñuy loxo samat la de waaw mbay foofu la wasalaam sa waay dégg nga sa waay mii daa mel ni idée yi sànq damaa fàtte maa ngi sant grand Paul Paul waaw di fay bu benn barak di nga sant Paul ak fay waaye kii kii waaw ñooñu kay bi tamit idaali ñëg non di nga ñëw ci maa dama kay da nga dama bëgg kii moom gars yi gën des na ko jàppale waaye yow kii waaw kii dégg nga lim la fi wax non kii moom waaw ma la wax rek man dama koy bàyyi wax ji Babacar comme dañ nee na moom dafa jàngi xeex bu jour ba na ñëw dëggal boobu ñu jëflante ma ak moom. dóor mu daan mën naa. waaw. ba nekk mën am. Hmm. incha allahu rek bu jur baa bu taxee boobu dëggale boobu maa moom bu soobee suñu bopp jëflante. moom ne nag kee la faral. yow foofu ko foo ci ñaar ñi ci Koña bi moom waa que le meilleur gagne mais Koña sama waay la ñoo euh, man Colobane may dóore moom faral moom rek man tamit su may ñaar ñaar dëgg yàlla moom laay ñaaral ndam quoi waaw ndax ba jili mi nga xam ne moo ko yor baa jili sama gaañ la waaw baa jili waaw moom sama waay la quoi kon Ronaldinho yaa nga ca dab dam Koña yaa nga ca mbayti <laughs> bés ba daal di neex en tout cas li koy mooy bu jour ba waaye lamb bi baax baax neexal lamb ji rek. <laughs> waa na mobiliser. waaw teel a ñëw fekk. waaw su mobiliser bi mbooloo mi na ñëw. waaw man moom. loolu promoteur bi da koy soxla Modou Anta. kombaa bi combat géejawaay la. gunaas. waaw ñetti mbaar. waaw Baxdaad. ñàgg mm. Kolobaan. Petersen ñëpp a ngi waajal combat bi. incha allahu rabbi bu dee duy dama koy duy ba mu fees dell man mbay jën maa leen ko wax. nee na xoolu suñu borom Lac de Guiers 2 sa la teg bët bi non kii moom làmb du dox dox ba mu bëri Lac de Guiers 2 ci làmb itam loo wax lii billaahi wallaahi mënta nekk làmb du dox dox ba mu bëri Lac de Guiers numéro 2 Babacar kii si man lay tëjee làmbinam wala déggoo ma maa ngi lay dégg bu baax kii nii si man lay tëjee làmbinam waaw su ma la waxee rek gëm ah nee na doo bëreeg Lac de ci yal na làmb dox moom ah ba mu bëreeg Ama Baldé moom yal na làmb dox daa bëgg bëreeg Ama de non xaw ma xaw ma non xaw ma dama ne dama ne su fekkee que ni war na bëreeg moom. Ah. ñaanal ko quoi pour. li ah, gën moom mu dem ba dab. waaw yàlla na ko dimbali. ok da ngaa bëgg mu sori daal bëreeg Ama. mais man Iba. waaw si kàttanu yàlla kon lu muy wax naan ma Iba. waaw kon li muy wax man Iba si kàttanu yàlla ak mbaaxam. su arbitre bi sifflé Mbaye Tine dama koy daan jël bu rëy. waaye duñ dégg merci beaucoup Ibrahima Ibrahima Nguer ñëwaal nga lu wóor na a dee waaw wuy ma déggoo ma làqatuuma. wuy ma lenn laa gëm déggoo xanaa. da ngeen di wërante lenn laa gëm sama waay. yàlla ni da ngay tëdd. non dama la wuy ma da nga may déglu wàll ma bàyyi la ko wax. ñëwoon ba tey mais dama la bëgg xamal dara ah bëgg xamal dara mënoo dara ci man xam nga laa béré béré pire laa du ma tàgg suma bopp lu leer laa la wax du def nit lu toll nii mais loo jëm ci man nga wayadi te bu làmbu jaa foo dugg xam nga yaa ma koy wax naa ma dugg nga fii xam naa fii xam naa fee. xam non da ngay wax di non eh, kan moo ñëwoon kan moo ñëwoon kan moo ñëwoon téléphone par téléphone. man am fu ngeen daje. non non non non daje carrément fi ngay dem sëriñ yi ngay dem. non non xam nga di leen jox ay 2000 francs. moo ko wax de. li ma la wax kay dafa am déggoo li ma la wax sëriñu man loolu maa ko wax lu ma ko wax lu ne dama koy wax maa ko wax. lu mu yor sëriñu 2000 francs moo ay sëriñam 2000 francs la leen neexalee. ay sëriñu mocc katu bopp la yor. bopp yi waaw loolu noonu xam man maa ko wax par téléphone. maa ko wax par téléphone buñ toogee dama ko koy teeloo waat mais moom non tax wootoon téléphone bu mu doon def gars yi ah. ma ci ma may def ñu woo ko mu dugg ci ma li ma ko wax naa ko wax buy métti bés ko moccul waaw dama bopp buy métti moom yelloo nañu mocc ah, kon moom moo tax muy wóor ji ay sëriñu mocc yow nag ma moom maara lañ ah. ay maara ay bopp ay maara lañ xew ma la combat bi ko wax lu leer quoi. waaw lu leer naññi ah? naññi eh, eh, waaw soo bëree ma daan boo xeexee ma jàngal la. maanaam moom combat dañ ko wax lu ah? Ah? man bëri naa mbër mu ne. man booy lu ëpp ngemb laa bëri daan leen. si amay man booy wax ay waxu ngemb. ay réer nga may def. mënoo bëri mbër mu ëpp xaalis. man ngemb daanuma non déggoo ma de non defal ndànk yaa wax ngemb ci ngemb lañ toll ci point boobu lañ toll non pas ay doole bu ñu eggee si doole billaahi dooma daan la bu doole dèjà xoolal yow ku tu maas nga. bu leen laalante. non non non ma nga. waaw bu leen laalante. man boo xeexee ma duma la. non rek man la ak yow. man li ma la waaw. lii moo ngi nii tànk bii nii moo mboot au sodu. au sodu ay ndaanaan la bëreel. dama ko tegal tànk moo daan Issa fu moo daan Socé Mané ñan nga daan. koo daan. limal ah ñi ma daan dama leen mën a yëngal limal waa kaay leen toog ay booy nga daan toog leen dab daan toogal nga daan xaaj bi bàyyi nañu bëri ana ñànka ana ñànka ana mu ay mbay juuf kay ana ñànka gaaro gaar ana ñànk gaaro gaar kan gaaro gaar yow bu diini bi la bëre grand combat foo bëree grand combat mbër toog leen wàcc foo bëree grand combat wàcc leen ñu jeexal neex na mbir ma neex bu jour ba boo dëggal sama combat dama lay duma sama laa la korok fan mooy bambay bambay bu doole sa yooyu sax laa do mbër waaye nag déet nag su ma la jàmmee lépp dëgg la yow xamoo bambay xamoo non xaw ma sama département man bu ko saboté jam ñaar fan la fan la Bambey nekk d'accord ma ci loolu kat non non non ah, man jam Bambey sama dëkk non non non méttiwul ya daali moo ngi nii xam nga sama nawle la Bambey la dëkk mais xaw ma Bambey am naa droit ma laaj fu Bambey mais ça simple mu nga jara sono Diourbel ah foofu la ne booy dem Touba non péage bi moo tax ma gëj fa jaar ko parce que fa jaar non la dem lamb <laughs> la non dee naa tey ah, doo dégg <laughs> waaw nekk moo fi jëlal limal de man ñëw ma fi pour yow. sama gars yi wër ma fay ma de yow. waa léegi waa léegi léegi baax na léegi dama ñëw ngeen tàggu. léegi may leen victoire la am ci làmb. yow ñaata neuf victoire la am ci làmb. ngay wax di kii na làmb te xamoo looy wax doo bàyyi wax ji. kii na làmb pareekuma Dakar mooy lan. waaye bàyyi li ngay def waay. sama waa ji wuy ma. ndànk rek dalal jàmm ma daan la. déglu ma ma daan la dalal la teg la ci yoon nga dem waa léegi mbaytin waaw eh, eh, eh, jeex na waaw loolu dëgg la mbay ñi nga wax ñoo ñoo ma daan ay ndaanaan ñoo ma daan mbay guy gi moo ma daan kan la war a bëreel tey ah maam Balla top 5 maam Balla top 5 la war a bëreel ndaanaan la bëreekat la non da ngay déglu nag soo bëggee ñu waxtaan mu neex yow kan yow moo la daan ku war a bëree maam wala ku war a bëree catégorie maam Balla mbër yi la daan kan moo fi war a bëre kan moo fi war a bëre catégorie mambaal non limal ma non non dañuy waxtaan de li ngay wax ni day bolofe nit ñi waxal lu leer waaw léegi woyu ma léegi mbaytu léegi ma léegi nag léegi dañoo a kaay bu ko defee non di ngeen tàggoo damay ñëw ngeen tàggoo non yéen moom li ngeen fi waxante mënatu la loolu kay jeex na ñoom ji li jël nañ ko ba pare li ngeen waxante kay leer na nañ yow kii wax na la wax nga ko. bu la waxante la daanee nga bàyyi làmb voilà loolu kay moom moo ko na am bëre. mu bàyyi bu jour ba di nga bàyyi làmb def daan. kon jeex sama xol bee. gars yi waaw ga wala ñaari mbëri tàggoo i daal di tëj après ñu dem ba beneen yoona ah. dab daan looy mujj a wax. santaat yàlla bu baax julliwaat waat yoonante bi gërëm samay ñaari waajur di ñaanal suñu bu jigéen yàlla na yàlla yërëm xare ko àjjana ñaanal sama waajur bu góor yàlla na lool tànd ak wër ñaanal suma mag moomi waaw di ko wax ni xam nga lu fi maire bi bàyyi yaa ngi koy sàmm yàlla la yàlla dooleel yàlla na yàlla dooleel bu gën ko mën di ñaanal bépp yaay waaw di leen ñaanal jàmm ak salaam di ñaanal bépp waajur di sant ba Traoré bu baax a baax waaw xam rek xel day fat di ko sant bu baax di sant Kambi bu baax a baax baax di leen wax ni combat bi dafa am fu ma ko teg combat daa fu ma war yóbbuwaat ci làmb di wax ni Waly Aram Mbaye Moussa la maire Mamadou Moulay Guèye Baba Mal yéen ñëpp ñu ma lim bàyyiwuma kenn di leen wax ni ngeen ñëw jàpp ci combat bi di sant suma yaay yaa mbenn Guèye maire bu sonn ci man yaagu lool depuis xale waaw di sant sama waa koñ yëpp maire Nday Seck di sant sama gaay waa ndaal ñu may àndal di sant ay Cheikh Wade di sant Cheikh Ñing suma grand frère ku baax depuis xale sonn ci man sant sama xarit yëpp bàyyiwuma kenn ku lim juum fi ñu toog tey xam am na si ñoo xamante ne nii moo leen tudd sa xel mooy fat di leen di leen woo ñoom ñëpp. di leen wax ñu ñëw jàpp di sant ay M saw ñoom ñëpp nañ ñëw jàpp si combat bi bi seen combat dëkk képp ku dëkk jam ñaajo nga xam ne bis bi sa bis sa mooy bëre ji de mais bis bi bisu waa jam ñaajo la di ñaanal mbaytin jàmm di ko ñaanal wër di ko ñaanal yaayam di ko ñaanal fameem di ko wax ne lii làmb la rek làmb moo ñu boole bu jeexee jeex na man ak moom ay doomu nday lañ nekk ñu ay noon waaw làmb ji nag mënul yomb day neex te incha allahu rab dinaa ko daan jël bu rëy. loolu noonu laa am lu may wax. bayti looy tàggoo. waaw gar waaw lu may tàggoo mooy maa ngi sant waa seen sama doom ndey Babacar VIP moo fi jaar moo ma senteel ak lay Wade waaw Babacar bu Modou Lama mm-hmm. maa sant sama booy yi mujjee ñëw muy euh, matériel bu saalum lum ak mm-hmm. Ndongo mm-hmm. maa ngi sant sama gars yi ma àndal bu baax ñoom Modou ñoom Mathia ñoom Dundu Aruna Soul Ama samay dégg di sant waa géej waay gépp di sant écurie Waalo école du Balla Gaye écurie Morfar ñu jàpp si combat bu baax waaw di sant nag sama waa dëkk waa Jilaas maa leen woo si combat bi ñu jàpp si bu baax waa Mbasis jàpp si waaw combat bu ma jaral la combat yi ma bëral yëpp combat bii nii Babacar. Mhm. moom laa gën a fong sama xama sama carrière. dëgg la ndax bii mooy sama premier grand combat te xama damaa war a dem. saa mhm. may dégg. Mhm. waaw di wax gars yi na ñu jàpp si combat bi bay ba maire Gunaas maa ngi lay woo nga jàpp si combat bi jënd ay bologu billet waa jox gars xam xama ci kaari yi saa may dégg gars yi dem stade yëngal. am na solo di woo sama doomu nday sara Saraxule waaw di ko mu jàpp si biir di sant sama doom nday Mourou Babacar Kero may jàppale. Hmm. di ma doole nam ma dara heure su ma jógee entraînement ay ginaar la may jëndal. barke Serigne Ba maa ngay sant bu baax waaw xam nga kii dafa may dooleel war na Serigne Ba macha mee xam na li wax macha mee xam na li may wax bu baax isa may dégg kii mooy loolu mais nag mën naa lekk ginaar daa mel ni de isa may dégg waaw xoolal maa ngi sant la déggee numéro 2 maa ngi la déggee numéro Demba Saraxule combat bi sa combat la bokkum bokkum boo der Salim. Lagrosse kooku dafa may dooleel Babacar di ma jàppale. heure su ma amee combat xaalis bi taxu la yëkkati di ma may maa ngi wax combat bi mu gën see jàpp. Issa may dégg maa ngi sant na waa Pétr Sène man nag mbëru commerçant laa man Issa Issa may man commerçant yi ñoo may jàppale. aw ma ministre aw ma dara man commerçant yi ñoo may. doole commerçant réew mi di. yi ñoo may xam nga ñoo may jàppale heure su ma amee combat Pétr Sène magasin yëpp may jox xam nga mooy loolu. bu jour baa ma jàpp dab daan duma ko daan ko dem ñibbi. loolu leer na.